Sénégalaise, Sénégalaises, Sénégalais, mes chers compatriotes, autres étrangers qui vivaient parmi nous. La tenue de l'élection présidentielle que nous venons de vivre consacre avant tout la victoire du peuple, du peuple sénégalais dans le combat engagé pour la défense de sa souveraineté et des valeurs démocratiques. Cette victoire est donc celle de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais d'ici et de la diaspora. Rendons grâce à Dieu de nous avoir permis de vivre ce moment historique de la vie de notre nation je voudrais remercier le peuple sénégalais pour le choix porté sur ma personne et au-delà de ma personne sur le projet que je porte et partage avec de nombreux compatriotes. Je salue la posture des autres candidats qui, sans exception, ont honoré une tradition bien sénégalaise sans même attendre la proclamation des résultats officiels par les instances habilitées de l'État. Leurs messages de félicitations sont le témoignage éloquent de leur grandeur, de leur humilité, de leur attachement aux valeurs républicaines et aux principes démocratiques. Je salue la posture du président Macky dont la vigilance et l'engagement ont permis de garantir un scrutin libre démocratique et transparent, assurant ainsi un résultat reconnu par tous les protagonistes. Tout en regrettant les peines et les souffrances vécues ces dernières années, les vies brisées ainsi que celles qui ont été perdues, je voudrais reconnaître et saluer l'attachement de notre peuple à la démocratie, à la justice et à l'égalité. Je remercie et félicite aussi tous les leaders de partis politiques, associations, mouvements citoyens et personnalités indépendantes qui ont cru à notre projet et rejoint ou soutenu la coalition du Président. Je m'associe aux autres candidats. M'associant aux autres candidats, je voudrais féliciter les services de l'État qui ont assuré l'organisation matérielle de l'élection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 pour l'unité et l'intégration politique et économique du continent. Je voudrais dire à la communauté internationale, à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, que le Sénégal tiendra toujours son rang. Il restera le pays ami et l'allié sûr et fiable de tout partenaire qui s'engagera avec nous dans une coopération vertueuse, respectueuse et mutuellement productive. J'ai une pensée pour les femmes et les jeunes. Une partie importante des ressources de la nation sera mobilisée pour abréger leur souffrances et leur manque de perspective. Le peuple sénégalais a compris et choisi ce, ce projet que le peuple sénégalais a compris et choisi permettra de libérer l'énergie créatrice qui sommeille en chacun d'entre nous et de mobiliser et valoriser les importantes ressources humaines, spirituelles et naturelles dont regorge notre pays pour en faire le moteur de notre sursaut. Au vu des urgences qui étreignent et de l'espérance placée en nous, nous travaillerons de manière acharnée et méthodique autour des chantiers prioritaires dont les plus importants à nos yeux sont la réconciliation nationale et la reconstruction des bases de notre vivre ensemble, la refondation des institutions, l'allègement sensible du coût de la vie, les concertations nationales inclusives, sectorielles, sur l'évaluation et la relance des politiques publiques. Mes chers compatriotes, cette élection est intervenue dans un contexte marqué par une crise préélectorale qui aura coûté des vies, qui aura fait de nombreux blessés, qui aura vu de nombreux patriotes emprisonnés. Nous entendons tourner cette page pour réconcilier les cœurs, réconcilier les Sénégalais et nous mettre inlassablement au travail qui devra marquer et réaliser l'espoir qui a été suscité par mon élection et le projet dont je suis le porteur. Sénégal Ganao peuple sénégalais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 ak yoonal ak jub ak jubal ak jubanti waaye tamit ak jox cër bu mat askanu senegal yépp ndax gannaaw ñoom lii mënul woon am tànneef gi seeni tànneef la jëmukaay bi ñoom ñoo koy wane te bu soobee yàlla dinañ ci ànd ak doomu Sénégal yépp loolu nag mënta am tànk taxawuñu ci xeex guerre ba pare jël lépp loo xamante ne mën nañ ko ci suñu kattan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 doomu Sénégal ñoo ci nekk ñu nekk ci beneen boor bi tamit di kuje gi ay doomu Sénégal ñoo ci nekk ku ci nekk jàpp nañ ci yàqin ne liy defar Sénégal moo la tax nga taxaw loolu nag ci ànd ak ñëpp waxtaan ceeg ñëpp di dalal xelu ñëpp ne lii nga xamante ne ñu ngi koy doxal naa ci ànd ak ñëpp ñu bokk ci kuje gi ñu bokk ci parti politique ñu bokkul ak parti politique bi pour ñu waxtaanee li nga xamante ne ñun ñoo ko moom ñoo ko bokk. te mënuñu ko seddoo muy Sénégal di jaajëfal nag ñi ñu àndaloon ci élection bi muy ñi yore woon les leaders nu ma ko waxee sànq parti politique yépp ñu bokk ci coalition Diomaye président di di jaajëfal tamit ñi nga xamante ne ñu ngi àndoon ak ñun yore suñu kaaraange muy sécurité bi di jaajëfal tamit ñi nga xamante ne ñu ngi àndoon ak ñun yore communication bi wala ñu yore organisation bi bu ñu def campagne bu mucc ayib bu fekk fu dem fekk fa ay sénégalais ñu teertu ñu waxtu gu ne ñu di leen jaajëfal ñoom ñëpp fu egg ak fu ñu eggul te di réserver nag une mention particulière à un homme je pense que j'ai pas besoin de le citer pour ciy ndokkeel ci gis-gisam ci détachement am ci désintéressement ci xalam bu ñor ak ci xalaatam yu rafet yoo xam ne moo tax ñu taxaw coalition Diomaye président moo tax projet bi am candidat ba sénégal yi amoon yéene jëmmal projet boobu ba xool promesse yi ci nekk yaakaar gu mu jur naka lañ ko fas yéene doxalee bu nekkoon kenn koo xamante ne rek day wax ne man kese budul man du doon keneen ci gannaaw kon loolu du mën am waaye yemul ci loolu yemul ci loolu parce que dafa takk ndigam takk ay dalam sol yéeram yendalul fanaanalul guddeeg bëccëg subaak ngoon soit ñu ànd soit mu jël axe ma jël beneen axe muy battre campagne matin au soir 6 heures du matin ñu koy gis muy battre campagne 2 heures du matin ci bëccëgu ndar kam ci suba teel donc jaar na fu ne def na lu ne te lu ci nit ñi gis rek ci lu fës nañ xam ne lu ñu gis mu def ko ci lu fësul moo ëpp solo ci lu waral résultat bi tey kon mënuñu ko bañ a beral loxo te bu ngeen seetloo saa yu may jëf prise de parole dama koy mujjee pour que nit ñi doon bu ñu dee tàggoo nit ñi nekk lu ñu mujjee retenir parce que bo bëgg naa bu nit ñi retenir dara ko loolu bokk loo xamante ne ci discours bi nu mu gudd gudd wala nu mu gàtt gàtt loolu du bokk ci lu ñu fàtte kon ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla may ko gudd fan may ko wér-gu-yaram ba yéene gi nga xamante ne ak ñu ci àndal yépp ci liggéey bi am na ko ci ñu mën ko doxal ci Sénégal mu Sénégal Sénégal bu naataange Sénégal bu bayé ko xel gën ko fonk ci aduna ak euh, ñu teg ko teg ko tamit ci loxo yo xamante ay loxo yu wor la combat yi nga xamante ne daan nañ ko xeex mu doon combat yo xamante combat suñu génération la mais du doon combat prochaine génération bi parce qu'il nous faut avancer résolument vers le projet progrès économique social et culturel